ñu ngi commencé nuyoo ci sunu membre yi nga xamante ni tey ñoom ñoo tax foire bi am seeni effort seeni góorgóorlu seen liggéey seen jàpp ci association bi seeni cotisation moo tax lu mel ni am ginnaaw ñoom ñu nuyu autorités yi fi toog commencé ko par sunu tutelle

bugguma lim balaa may juum mais daanaka boo tuddee Renades boo tuddee FENAFO tudd nga association yëpp ndaxte ñëpp ñu ngi ci ñaari kuréel yooyu mu tudd président association yi nga di gërëm leen sant seen teewaay liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy bokk participation caritative bi nga xamante ne yéen koy def waaye aussi ni ngeen ñu jàppee ñu nekk seen ay jeunes frères nekk seen ay doom ngeen ñu teg ci yoon kenn ku ci nekk lu mu xalaat ni baax na mën naa jëmale liggéey bi kanam bu koy def te xarul kenn woo ko ci ñu leen di gërëm di leen sant ginnaaw ñoom ma remercier nuyu nos partenaires nga xamante ni tey suñu cotisation yi ñu joxe pour mën a ñëw ci foire bi buñ ko allégé rek parce que partenaires yi ñoo tax partenaire bu mën a ñëw yëkkati dix millions de francs jox la ko

ngeen di ñëw ci ñun boo leen amee ay fois sectoriel wala sargal proposé lañu benn document boo xamante ne ça va tenir sur une année nga xamante ne seen foire yi sectoriel bi ak euh, sargal bi nañ ci ñëw mais aussi boo leen amee séminaire boo leen amee assemblée générale boo leen amee ay manifestation bu mu mënti nekk muy opération tabaski wala lu mu mënti nekk dañ taxaw à vos côtés donc loolu rafetaay la boo xamante ne fa la ñu serré ko devant mbooloo bi

mais tey bu ñu amee banque boo xamante ne dañuy mujjee bu Sénégal ñëw na ba fekk si suñu kër fekk si suñu manifestation wane seen disponibilité en collaborer ak ñun je crois que loolu avancé boobu avant avant am solo la may profité rek di wax crédit mutuel leneen aussi ñun ñooy seen meilleur interlocuteur foo ma tax seetlu ngeen ko wala seetlu wala yéen ni ngeen soxla may wax ak askan bi yëpp wala ba wax ñu ëpp ci askan bi. waaye bu leen fàtte mukk ni Sénégal boo nee xar xar boo ko waxee rek woo nga bépp borom kër woo nga bépp soxna woo nga bépp famille donc ñun ñooy seen meilleur interlocuteur levier la vecteur lañ boo xamante ne bu leen bëggee jokkoo famille rek jokkoo leen ko levier te Adam am na taxawaay boo xamante ne ak maillage boo xamante ne boo leen liggéey moom rek ngeen bëgg ngeen ko am xam ngeen ni am na éleveurs yu fi jógee saint am na éleveurs yu fi jógee Touba am na éleveurs yu fi jógee feneen ak feneen ci gox yu fasantikoo biir Sénégal donc boo leen jëflanteeg moom fii rek xam nañ ni mu ngeen am ngeen bëgg ma profité rek wax ko balaa sama xel li ko fàtte maanaam dina ko léegi am na ñaari manifestation yu mag wala ñett bi en tête di organiser à Touba bii benn di organiser à Xar Yàlla waaye aussi res am na bu ñu organisé à Saint-Louis ñetti manifestation yu am solo la ci mois de décembre bi noo leen mën a def ba seen équipe teew foofu rek def leen ko parce que ñooñu noonu bokk nañ ci ñi nga xamante ne am nañ doole trop trop trop ci ñi nga xamante ne dañ koy def su ma liggéey ci loolu aussi damay gërëm waa caisse de dépôt et consignation man foofu laay liggéey def naa li ma mën

li ñu seqal si moom moo di ñu ñëw yore setaayu foire bi suba ak ngoon en contrepartie ñu may leen ñu mën a jëflanteeg suñu éleveur parce que xam ngeen ne dañuy collecté déchets yi nga xamante ne dañ jógee si xarit pour defar engrais waaye aussi di gërëm globalement prestataire ak képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ci foire bi ñu xam la ñàkk la xam ngay liggéey benn entité ci adam ñu leen di gërëm leen sant bu baax seen teewaay di gërëm suñu restaurateurs yi di gërëm suñu daamu UCG yi di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci faar bi sans fàtte aussi suñu média yi suñu frère yi ñoom ñooy balaay coach ñoom centre rassemblement ak Mara ak média bi yëpp ñoom Aliou Mbaye tous ñaan yàlla coopération bi gën a rafet liggéey bi gën a jëm ci kanam su ma jógee ci loolu ma teg de stage comité de stage nag ku ko wax rek wax de l' association membre yi ba kër Serigne Aïdara kër Ousmane Thiam su ma limee damay tuuti mais ba docteur Niang maanaam ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoo naan association bi nekk suñu kilifa suñu yaay Fatma euh, Doumbia nga xam ne dafa laawoon jiital Serigne Aïdara wax naa ko euh, suñu kilifa la ñu jóg mais aussi suñu grand frère Sidi Ndaw frère am rakk bakkenam benn bakkenam monsieur Mor Niang suñu papa ji waat ak suñu frère yi nga xamante ne ay président d'association ñu mel ni Xaalif Fall Bektel ak ñoom Birame président Aliou Wa et cetera. suñ leen gërëmee tamit dañ ci dekk le bureau mënumaa wax fii te gërëm ma le bureau de l'ADAM nga xamante ne suñuy collaborateur lañ ñu ngi liggéey ensemble ci jàmm ak salaam mais aussi ku seetlu liggéey bi ñuy liggéey ci biir association yi ni ñu ko organisé ni ñu ko aménagé. professionnalisme bi ci def nii gérer les relations nga xamante ne nekkul lu yomb nii gérer les médias xam ne liggéey bu am solo am na fi donc équipe boobu ñu leen di gërëm bu baax a baax li ci jiital le premier vice président mu di monsieur Issa Saka nga xamante ne dafa nekk en mission au Gabon di si teg aussi le second vice président Cheikh Aïdara nga xamante ne mosquée bu yàgg bi dañu teg frais aménagé ko pour les élèves moom moo ñu ko moo ko mettre en disposition ñu ngi gërëm aussi suñu jigéen nga xamante ne kenn la suñu biir muy jàpp ci bari jigéen la mais jigéen bu mën góor la jigéen bu am fulla ci la jigéen bu am xam la jigéen bu assu ci liggéey bi la ginnaaw loolu dama bëggoon rek dëggal ay propos yoo xamante ne dégg naa ko ci le président avocat nga xamante ne mooy suñu baay waaye dafa jël kàddu si pour faire affaire am discours bu am solo bu wax ci wàllu dajaloo nekk benn tey Fenaafo dafa nekk structure boo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk Fenaafo dafa nekk structure boo xamante ne buñ ko doolee buñ defaree organisation bi buñ defaree fonctionnement bu baax buñ liggéey ci ñuy wax inclusion maanaam dugal ci ñëpp ñi nga xamante ne war nañ ko bokk te nag def ko dans les deux sens nit dina mën a ñëw démarché président avocat pour dugg biir Fenaafo mais président avocat aussi war na mën a recenser képp kuy structure buy liggéey ci wàllu agriculture élevage xam ni wàllu monde boobu finance bi aussi ñu tàllal la loxo je crois que loolu bu ko defee ci la ñuy gën a am représentation bu baax devant les autorités li ñuy def baax na mais dafa cher dafa métti foire bi ak foire bi jógee ak sargal bi soo ko boolee du ñu nekk lu yées cent millions dinañ ko dépensé donc loolu éleveur su koy dépensé ànd ceeg ay partenaires yoo xamante ne moom moo leen di démarché loolu képp koy def soxla nga jàppale te sax état du Sénégal tey dafa am ci lu ñuy wax PAP 2 ans mais seen document de politique économique et sociale ay jàppandal yu bare bare yoo xamante ne dafa nekk ci wàllu agriculture ak élevage état nag du top ay intérêt particulier mais intérêt mbooloo intérêt askan intérêt général lay topp plus ñuy dajaloo plus ñuy mën a jëmmal suñu bopp plus ñuy jox suñu bopp gën plus état bi ñu xoolee bët bu am solo hmm. maa ngi fàttaliku ñuy installé Renades defoon a bu rëy boobu defoon ci CES bi nit ñi toogee rek mbooloo mi bëri ci saase présidence de la république dafa dépêché benn représentant moom la fekk suñu si mbooloo c'est pour dire que état intérêt général lay xool nañ ñëw ñun ñëpp nekk ay président association dugg biir FENAFO ñu structuré ko organisé ko ku nekk lan ci war a jàpp nga jàpp ko ñu doxal ko mu nekk loo xamante ne bii ñu suñu loolu rafet na. su ma gis loolu damay wax ak le président Omar Sow déjà ma remercier Tonton Djiby du ci discours bi mu mais aussi Omar Sow dafa nekk nit koo xamante ne euh, yoon la ñu taxaw fii gërëm Omar Sow ñun ñëpp ñu ngi daw derrière un siège On est loo xamante mais woo na ma bureau ñu top. moom en tant que président du réseau national des éleveurs du Sénégal mais aussi en tant que directeur de l'urbanisme nekk poste boo xamante ne poste bu stratégique la nañu fàttali que ñun may leen terrain Adam. bi ma yëgal loolu aussi dafa ne ma mayal nañ terrain Kanafu waaye mayal nañ terrain aussi Garabes mu nekk trois terrains yoo xamante ne su ma juul géejawaay lañ nekk te loo xamante ne la ñun ñëpp dinañu jëriñ récemment woo na ma sax di ma laaj les références de notre récépissé pour mën a titrer terrain yooyu nga xamante ne moom mais aussi man la boo xamante ne de temps en temps daf ñuy woo ñëw bureau toog waxtaan ci association bi. lépp lu mën ci ay xel bu rafet mais aussi orientation bi aussi par rapport à li def daf bu baax a baax loolu fa devant tout le monde euh, aussi euh, euh, grande offensive pour les petits et la lutte contre le déficit en mouton et bien de boucherie ñun bi ñu doon dire par toujours ci orientation stratégique état ci wàllu mbay ak sàmm ci lañ jëlee titre boobu du ma ci parce que docteur Ba li ci wax am damay rek annoncé inshallah allah benn rencontre sous format de séminaire wala symposium boo xamante nañ ko organisé dans les jours à venir pour toog waxtaanee le format de Saladam mais aussi liggéey ci programmation activité wu Saladam bi yëpp yëpp yëpp nga xamante ne le bureau dina si ànd ak les sages mais dina si ànd ak aussi bépp personne ressource boo xamante ne mu ngaa tax liggéey bu jëm si kanam euh, ginnaaw loolu dama bëggoon rek wax ni am nañ ay objectifs pour le Saladam

pour ñu bay mën a yombal dëkkuwaay pour éleveurs yi mais aussi lu mel ni société moo mën a tax nga liggéey ci capitalisation bu am doole mën a jënd ay chapiteaux yoo xamante ne dina wàññi bu baax frais yi nga xamante ne dañ koy def suñu euh, foire yi euh, ginnaaw loolu wax rek ne am na yeneen projet couverture maladie bëgg nañ aussi sunu jeunes yi nga xamante ne ñooy nekk ci gétt yi di nga xamante ne ku ci nekk da ngay nekk sa activité mais am na ñoo xamante ne ñoo lay veillé ci gétt bi bëgg nañ liggéey ci ñoom pour ñu former leen bu baax a baax a baax def li ñu wax encadrement technique ak ñoom waaye aussi comme ni ko wax waxee woon ci suñu document de notation stratégique bëgg nañ désormais chaque année suñu papa yi fi nekk bu ci mënee jël benn wala ñaar wala ñett fexe ñu demee marqué donc si ñu ngi lay wax loolu comme que yaa yóbbu maanaam mbay fële da nga fexe ba am loolu si loolu taxawaay président bu ñu ko jógee aussi Lamine Diop ñu la ko yëgal bu baax a ko yëgal ñëpp papa yi ren bëgg nañ incha allah benn ñaar ñett wax ko lu muy toll incha allah ñu yóbbu leen Maka incha allah. Euh, remercié naa Omar Sow Lamine Diop Sidi Grand Coy ak Matar la nga xamante ne aussi yëkkati nañ seen xaalis may ko association waaye aussi remercier ñëpp rek globalement parce que jarul sax may lim ay tur mais ku mel ni Pape Demba Fall boo ko remercier remercier nga ñëpp

élève bu ne bu ñu la ràññeewee dafa am jëmmi jamono boo xamante ne moom moo la influence man je l'ai dit RNI bi may dugg si élevage en 2010 ki ma méngalool jamono ki ma gisoon élevage ma impressionné ma ki nga xamante ne fekk na sama kër façon jàppale bu nekk mu ko jàppale à l'époque président Abdoulaye. waay tàcc leen loolu waay. ñun ñu ngi taseeg génération booy séeréer. resumo, Ammasını yapabilir. Yine bu eseri. Yine Galavar. Yine Magistrat. Xale yooyu noonu yëpp ci këru Afghan lañ tudd. dëgg la donc loolu ay caan ak ak ak Bachir. dëgg la président Abdou. ñëw na suma gétt man parce que boo xam naa si dëkk ñun bergerie ci ma taxaw di wax ay karo. ah bon bi ma koy def yaatu naa. gars a loolu wax Assane Mbese dugal nañu ko ci pàcc. tey max waa Sara bi waaw président am ñëw seet sama benn jour ma jël si mu ñëw sama kër ci guddi ñu xool xar yi ànd am nañu mu ne ma comme que tabax bu mel nii dinaa la jox xar moo tax doomu Ramsès bu jigéen man maa ko jël ah bon jour boobu dañuy julli timis ñu paree julli mu ne ma lan nga ko def fii mu ne ma est-ce que lii baax na maa ko waaw mu jox ko prix bu yomb vraiment donc nit la koo xamante ne à tout point de vue jàppale na ma mais aussi ànd nañ def ay démarches yu bëri ci wàllu élevage ànd nañ dem ci ay rencontres yoo xamante ne dëgg-dëgg maanaam moom kese la woon ci ay kilifa yoo xamante ne parfois sax dañuy liggéey au niveau international nit la koo xamante ne def na ay coono yu bëree bëri ci élevage gis nañ ko jamonoy perte ba mais gis nañ ko aussi bi mu nekkee président la parce que man nekk naa ak moom ci biir association bi moom mu nekk suñu président moom ma nekk le trésorier général adjoint donc nit koo xamante ne la collaboré na ak moom ànd naa ak moom guddi ak bëccëg parce que nit koo xamante ne da ngay toog moom ak soxnaam ak yow ngeen wéet di lekkandoo kooku ma lay wax ni intimité la donc loolu pour seet ak moom loolu rek seet ngaa moom lu bëri li ñu bëgg rek mooy ñu jàppale jàppale ko ci sas bi nga xamante ne am na ko ci FENAF nga xamante ne ñëpp am na ci loolu mag boo xamante ne war nañ ko ci joué mais aussi cëral ci jox ko ba mu mën sëkk taxawu ko fi ko war a taxawoo féete ko fi ko war a féete te xam ne su ko valorisé su amee valeur ñun ñëpp dañu am valeur parce que dafa am loo xamante ne marque indélébile la ci élevage te fës na ba teg ci empreinte ba pare. dëgg la dafa ne naa ko tuddee samay kàddu di dégluwaat ci bépp jumte boo xamante ne am na ci. di wax sunu partenaires yi di wax sunu kilifa yi fi toog ñoom ñëpp ne joxante nañu rendez-vous incha allah dans deux mois au Saladam nga xamante ne c'est un salon international boo xamante ne balaa maa dem sax war naa wax si le DG Salif Keita nga xamante ne sunu xarit la am na yombalal yu bëri yoo xamante ne yombalal nañu bëgg na sax suñu AG yi ñu am désormais ñu koy defee biir CICES ñu koy liggéey waaye aussi njëkk bi ñu doon joxee CICES adam nekk na njëkk loo xamante ne daanaka léegi wàññi ko bu baax a baax.